wa ma Sénégal bi tay bi man dal sama gis-gis quoi ndort na ne war nañ ko meuna gagner war nañ ko meuna gagner facilement manam ci kaw jour yi wana ful ak jom ak beug beug entraîneur bi tamit ñew parce que à chaque fois gars dañuy seetlu ni mas yu ni ñak ñu ci bare bëri mom du ñew manam ñak ñew gi man amna lu ma remarqué heure bu ñu mas ba dem deuxième mi-temps bu ñu defee changement rek dañuy perte match yi man loolu dama ko lu bare bari léegi na xaw ma nag man ni ma ko seetloo gars yi bàyyi nañ ci xel wala Aline en plus match bi weesu maanaam dafa ñëw militaire bi di dox ñu mën a per benn ñëw raxas militaire bi yëpp ñëw maanaam raxas lépp daal léegi ñu ñëwaat dañuy doon ñu bees dañuy doon ñu bees ñoo xamante ne ñii dañ leen di gig maanaam dañ ci gën a nekk daal Aline daal war na mën a ñëw tey ñëw. moom bu ñëwee gars yi war nañoo mën a gañe match bi maanaam maanaam du benn problème ñu gañe ko waaw waaw waaw loolu tamit mat na bàyyi xel lu bëree bëri parce que boo xoolee Mourtani maanaam suñuy doom bàyyi ñoo fay fubal ñii sant Gaye ñii sant Diop maanaam xam nga ñooñu suñu mbokk lan ñooñu suñuy mbokk lan comme maanaam siika ni newataan la rek maanaam gën a bëgg la ak maanaam moyen bi quoi moyen bi la ñuy sàmb bëggu ko bu ñu ko bëggee rek mën na leen a gagné non facilement maanaam sama gëm-gëm jour seen niveau fi mu nekk bu ñu ñëwee indi ko rek tey mën nañoo tàgg ak ñoom premier sama gis-gis. score bi xam nga rek ñun moom daanaka suñu score li muy varié dafa bari quoi toogul benn place lu ci ëpp. waaw waaw sama xel mu gars yi gis naa ne war nañoo mën dugal ñaari bit ba ñett parce que niveau jour ñu yor ak ñoom bokkuñu quoi maanaam niveau yi. bokkul dafa am large bu soree sori mais nag comme li nga wax match dëkkandoo moom gars yi niveau dañ ko teg fële indi leneen loo xamante nii maanaam mooy loolu gars yi daal nañ ñëw rek wala lekk fale ñu gagné leen facilement première mi-temps war nañoo mën a tàgg ñoom loolu weesoo ñu ngi sant bu baax ñu ngi sant télé bu baax a baax gis nañ seen taxawaay gis nañ liggéey bu baax bi ngeen doxal ci réew mi ak yooyu yëpp ñoo ngi koy bàyyi xel ñu leen di sant di leen remercier waaw Cissé wax dëgg fa yàlla yaakaar naa def na fi 9 ans baali ko jigee mu fi door a am jël na fi trophée jël na fi trophée loo xamante ni mosu fi am def na ko fi mais tamit wax dëgg fa yàlla def na fi mais am na suñuy mas yu bëree bëri yoo xamante ni yi day jóge ci moom ñëw ci équipe bi quoi te équipe bi ñu yor am na entraîneur yoo xamante ni gis naa ni ñoo ngi naan équipe bu ko yoree mën nañoo jël trophée bu ne Sénégal te loolu dëgg la alil mom baax na trop mais ni ni gaay war nañu mala dem xol lo xamanteni moko sut quoi équipe bi yor war nañu wut entraîneur bu bu ko sut niveau manam pour ñu mën jël yeen trophée yi. Kër Abdou Diop may secrétaire général AC Atomique bu Thiès bon tay jëno ñoo di wax ci match Sénégal Mauritanie bi waram tay à 16h au fait tay tey ko nga waxe match day match bu war a gagné impérativement la. parce que match dernier chance booy xool en plus match de dëkkandoo la dir bu war a là mais ça instant bii nii moom Aliou Cissé li ñu war a dimbale affaire la mooy les trois défenseurs parce que Sénégal on a un problème de repli défensif surtout sur les côtés te équipe bi soo xoolee on a les joueurs qu'il faut on a des latéraux na jël latéraux yi football la leen yow on a des formes formes Mendy qui sont là on a à gauche Abdou Diallo loolu football la woon teg Niakhate Koulibaly teg milieu terrain bu baax ñu football war a pomper ñu parce que match bi match derby la. non trois défenseurs yi baaxul parce que on a problème de repli défensif soo xoolee bit bi ñu jël ko contre Cameroun loolu la soo xoolee bit bi ñu jël ko contre Cameroun problème de repli défensif la donc il faut ñu jéem a lijjanti loolu problème boobu noonu en plus l'attaque l'attaque on doit revoir cela on doit revoir cela parce que Sénégal mënu ma concevoir muy football mënut dugal deux bii ak calibre euh, offensif bi ñu yore ça aussi c'est à revoir parce que ku soo xoolee même booy bu ñu attaqué sax si la course ne leen taxaw leen

on n'a pas besoin de 12 h à 14 h parce que le Sénégal mine de rien c'est le numéro 2 en Afrique c'est le numéro 2 en Afrique mais des fois, day mel il donc y a un problème de système c'est pour ça que Sadio euh, Mane en a parlé on doit revoir le système sénégalais système problème système Non, non, parce que Sénégal pour te pour faire les bien, par bien. on a de très bons joueurs mais ce problème c'est le coach malgré a gagné la Coupe d'Afrique et tout cela mais bu ñu nelaw suñu lool football soxlawul lool football soxlawul football football football football du histoire da ngay def da dafa résultat da lay dakk c'est ça. pour match tay bi Sénégal digënté Mauritanie ak Sénégal waaw man match tay bi moom lu ma ci xalaat mooy ali Cissé mu teg système bu baax te mu non système bi mu doon teg baaxul ay trois défenseurs yooyu muy jé noonu système bi mu doon teg baaxul ndax moom ay trois défenseurs lay lay footballé te trois défenseurs baaxul. ndax bu fekkee nag ngaa bëgg a teg trois défenseurs ci football mi fii il faut nga am milieu terrain boo xam ne day produire pour bal bi dem ci kaw mais amoo milieu terrain buy produire kon système trois défenseurs bi da nga war a bàyyi. te maanaam moom il daa war a bàyyi leen maanaam bu ñu joué ba war a soxla résultat maanaam il faut mu teel a dugal joueurs yi comme que yow soxla résultat joueurs yi da ngay toll ba ay soixante quinze ay quatre vingt nga leen dugal pour ñu am fële pour ay dix minutes loolu ñoom du baax si ñoom. il faut nga télé na a ay 55 60 minutes nga dugal le ñu am 30 minutes wala 35 minutes ñu mëna sax dox pour dugal mais da ngay bay ba mu des 10 minutes nga bëgg leena a lolu baxul te jour yi tamit il faut ñu xam leen tay ji masse capital la manam masse capital moy lan Mauritanie suñu gagné dañuy tok ñun victoire rek moñu ñu ak yeneen masse yi ci des il faut ñu gagné ko ndax ñun suñu obligation moy victoire ndax Soudan bi nek ci kaw mom mo ngi gagné masse mi te ñun instant yi mënu ñëw ñu wax waaw daa war a dem moom ndax mënul waaw Aliou moom mënul daa war a dem te moom xam-xamu boppam rek ko doy du déglu kenn te mënul changement tamit changement yi da koo war a di xool de mënul changement de changement bu mu def ñu ñu ah, ñu dugal ñu loolu baaxul. te Aliou moom yàlla daa def moom ku mu xuloon rek jour bu mu joteel ah faaw mu woon loxo ci classement am wala ci remplacement am waaw dafa war a respecter sénégalais yi xam ni. dañ koo jiital comme ni ñu jiitalee Jomaay mu doon suñu président ñu jiital ko jox ko suñu équipe dañoo wala nawloo nawloo gi nag mooy lan suñuy changement mu koy teel a def waaw joueurs yi di mën cee mën cee yëg seen bopp ndax nit ki boo bàyyee bàyyi quatre-vingt-cinquième minute wala soixante-quinzième minute nga bëgg koo dugal xam nga li nga bëgg ci moom doo ko gis li nga bëgg ci moom doo ko gis ndax ndax lan doo am temps de jeu waaw temps na nay may joueurs temps de jeu te bàyyi xuloo beeg joueurs yi ñun dañ koo dénk suñu équipe nañu ko yoral voilà te Aliou Cissé dafa aayul aay goo xamante ni xam nga du du dañ koy neexal wala lii nañu yoral suñu équipe dañ koo jox équipe mais xam-xam gi ne ci bopp bi bariwul li ne ci bopp bi bariwul waaw nañ ko wital wala ñu wital ko sax ñoo xamante ne dañuy toog ci wetam tubaab yi tubaab yi ñu toog ci wetam Aliou Cissé xel mi ñëwul fekkee tamit daa am lu ko dofloo tamit mu teel ñoo wax. man la Baye waaw. di bégg la am ma Sénégal Mauritanie bi du yomb ndax Mauritanie donc équipe la bo xam dafa tek bët Sénégal quoi ba pare derby lay doon donc la ci dëkk yi gëna a donc ba pare équipe yu xamanté la quoi parce que danaka Mauritanie bo xolé ñi fay jouer ñëpp danaka bo len xolé bu ñul ay sénégalais aussi jege nañ ko waaw nek mënut a nekk match bu yomb quoi parce que derby la. waaw def Aliou Cissé nak franchement parlant jotna mu dem quoi bala mu yaq lim fi defoon. balaa muy yàq li mu fi defoon quoi parce que coach boo xam ni yow plus de dix ans nga yor équipe amoo benn projet de jeu système boo teg du dox donc jot na nga dem xajal place yi keneen quoi mu ñëw vraiment waaw. waaw match tey bi score bi important wu ci gagné rek moo am importance quoi donc un bi d'écart baax na deux bi d'écart baax na waa jarul muy metti quoi nañ jël trois points rek loolu mooy l'essentiel. non Sénégal mën naa gagné match bi facilement bu joueur yi ñëwee engagé wu course bi xam li muy teg ñu gagné Mauritanie facilement waaw mais nag bu fi nekkee di teg xal ba Mauritanie am confiance ci match bi moom dina metti ci ñun trop. waaw Mass Mbaye coach coach UST te nuyu bu baax di nuyu téléspectateurs yi. waaw de waaw c'est possible match la mën nañ ko gagné mais aussi il faut ñu bàyyi xel ni instant bii nii. on a notre destin en main parce que l'adversaire déjà ñoo ko raw aussi on est deuxième de la poule donc il va falloir agir gagner match pour mener. espérer faux pas premier bi Soudan pour mener contrôler la tête de la poule. maintenant le match bu compliqué parce que déjà déplacement à l'extérieur mu nek derby adversaire bo xamanteni c'est une équipe qui monte en puissance avec un bon entraîneur Amir Abdou Yoron euh, Comore def ay exploits donc donc yoroon Madagascar du moins def exploit yu baax avec euh, ci CAN muju mujj ba pare réussir génne Mauritanie pour la première fois de son histoire donc mu nek entraîneur bo xamanteni wax deug yalla amna projet de projet de jeu bu leer donc ñu wara a ak mom mu nek match bu difficile parce que Mauritanie dafa nek équipe bo xamanteni bo xolé ces dernières années dañu progresser ak ay joueurs yo xamanteni peut-être des des autres nationalités comme ñam joueurs sénégalais la ñi ay guinéens maliens donc mu boole avec un championnat aussi boo xamante ni mi ngi dox ay joueurs expatriés donc dafa commencer bâtir une équipe boo xamante ni dajeeg jouer joué ak moom jamono ji yombul mais nag jàpp naa le Sénégal a les arguments pour mon koo gagner parce que tamit ñun tamit bu nous sommes les champions d'Afrique en 2021 xëy na peut-être am na loo xamante ni jàll na ci diggante mais boo xoolee l'ossature de l'équipe est là équipe équipe baa ngi fi te joueurs yaa fi l'entraîneur est là donc je pense que avec nos armes les armes les les arguments en présence mën nañu inquiéter cette équipe mauritanienne mën na nekk lu possible mais nag dispositif bi na leer et puis joueurs aussi qu'ils fassent valoir ce que leur qualité nañu jouer cette valeur bañ a adversaire aussi Au Sénégal aussi dañoo am tendance genre match yooyu aussi ñuy xaw a adversaire mais bu jouer suñu qualité gëm naa ni match bi mën nañ cee génn mais nag du il va falloir le jouer pour pouvoir le gagner waaw mais xam nga gars parfois dañuy critiquer rek pour mais man japp naa ne Aliou Cissé li mu teg c' est compte des éléments yi mu am parce que man équipe boo xamante ni. waaw non foofu la juumee peut-être bu ñu remonté erreur bi mooy ci li mu woote mënoon na woo ay arrière nga xamante ni dina mën a am son son système basique mooy 4-3-3 bi mais comme ay arrière nekk fi li mu am mënu mënu jouer lu dul défense à 3 bi parce que amuñu ay arrière del amuñu latéral gauche de métier donc il va falloir donc nous ñu en fonction des éléments en présence ñu concocter système pour xamante ni ci problème C'est pas un problème de système c'est un problème d'attitude et de comportement tey jii un Ismaël quand il fait son job il fait le game, les gens les attaquants yi concrétisent les occasions Comme naa ni match bi ko Jackson bu dugaloon système donc match bi attitude joueur parce que système système est la mais animation bi joueur def sur le sur le système mais du système en tant que tel mais l'attitude du joueur les joueurs je je, je peut-être une erreur de communication parce que Sadio Mané du c'est pas n'importe qui dans l'équipe joueur la bo xamante ni il peut se permettre dem gisante ak Aliou Cissé waxante ak mom xam nga donc euh, amna ci lo xamante ni bu ko bu ko bu ko waxee ci média yi rek c'est-à-dire jàpp naa peut-être c'est une erreur de communication Mon na gis entraîneur wax ak mom et puis système ak classement loolu c'est du ressort de l'entraîneur na ci waxtan ak mom en privé après bon loolu je pense que ne waru poser problème mais dès l'instant que guen wax ak média yi loolu rek c'est c'est ça ça pose problème loolu loolu ci vestiaire la war joueur professionnel bi joué tey synthétique ñëpp xam nañ terrain moom benn synthétique ba yaakaar naa ni joueur professionnel bi joué synthétique loolu raar non loo voilà non loolu c' est un problème wax dëgg yàlla c' est un problème nous sommes en 2024 ak football fi mu toll jàpp naa ne Mauritanie aussi foofu war nañ def ay jéego jéem a wut stade boo xamante avec un gazon naturel parce que synthétique bi y a les risques y a un problème d' adaptation tamit parce que joueur boo xoolee ñoom ñëpp ils jouent dans du gazon naturel waaye eh, ñoom loolu aussi seen avantage parce que ñoom si tàmm nañ ko di ci jouer tàmm nañ fa recevoir ñun ñoo ciy xaw a mais nag on va il va falloir que ñu adapté wu parce que football moom moo demee noonu da nga war a adapté wu ci climat da nga war a adapté wu ci ci état terrain da nga war a adapté wu ci facteurs yëpp yoo xamante ni c'est des facteurs exogènes yoo xamante ni bokku ci mais nag da ngay adapté wu parce que moom tamit ci lay football lu mu ci war a def yow tamit war nga répondre à pense que ne buñ ko mën nañ ci mën nañ ci am ndam def on est ensemble